mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah ñoo ngi fii ci stade Amadou Barry eh, nekk ak sunu wëlëre sunu kilifa sunu magu daara oustaz Madiama Fall war a waxtaanee ak moom xadara bi nga xam ne moom lañ dëgmal demee incha allahu taala fii ci ngoon ci teewaayu mboolem sorofaaw yi nekk ci Algérie Maroc un peu partout dans le monde ñoom ñëpp dina ñëw Sénégal mu nekk célébé yoon bi ba ci ñi nga am xibaar ne waa Côte d'Ivoire sax dina ñëw ngir fekkee ci li nga xam ne mooy xadara bi waaye rawatina nag eh, Marrakech Atijaniya bi nekk senegal ñoom kenn du des ñoom ñëpp dinañ ñëw ci stade Amadou Barry ngir dundal taarix bi nga xam ne Cheikh Abdoul Aziz Al Amin moo ko fi sampoon bàyyi ko fi ba tey ñu di ko amal ñi ngi koo xam ne nag fa tabaarakallaa ci commission bi la bokk ci kilifa yi taxawu lii la bokk dañ koy laaj fan nañu toll ci organisation bi ak suba naka la ñuy xaaree nit ñi ak ban appel def suba pour que nit ñi mën a wuyu si massivement ñu profité ci occasion bi ñaan yàlla jàmm ci réew mi parce que bërëb boo xam ne ñëpp dañuy dajee di tudd yàlla bërëb boobu na am yaakaar ne bërëb bu la kon ñëpp nañu joxante rendez suba ci esaat Amadou Bari Géejawaay alxaaji ma jama bismillah alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla mayee ñu fekkee wat ko ndax lii fekkee ko mbégte la fekkee ko xéewal la fekkee ko sant yàlla la xadaratul juma bi dafa unique ci àddina amul fenn ci àddina fu ñuy organiser xadaratul juma bu toll ni amul fenn fu mbooloo di dajalee ci àddina ba àdduna sosoo ba tey mbooloo mu toll ni àndandoo ci benn baatul la ilaha illa allah laa lool du jaar mukk noonu te yàlla du def lum ci def euh, sëñ Mawlaaya Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz Al Amin moo ci joxe ndigal ànd kook ñi ko àndal ñu liggéey ko ba mu fii tey waaye nag mu wax ci wax bu garaaw mooy képp ku ci teew Cheikhu Tijaani dana la tappal garaat te Mawlaaya la wax loolu xaqul yaqin la xaqul yaqin la ci am nekkul lu mu wax teg ko ci bakkanam wala nekkul lu mu wax bu bëgg lu leen neex li mu wax lu mu am xaqul yaqin la képp ku ci teew Seexu Tijaani dana la tappal garat fala budda loolu nag jar na nit ki nga xuus géej ba egg Amérique pour Seexu Tijaani tappal la garat te jeunesse Tijane bi ñoom ñoo ko moom seen pas-pas seen détermination seen gëm tariixa bi seen gëm xadara bi moo ñuy motiver ñun mag ñi ñun mag ñi xale ñoo ñuy motiver ñun ñoo waroon di motiver xale yi mais gis naa ni ñun léegi ñun xale yi sax ñu ñuy motiver ñoo ñu ëpp taxawaay ñoo ñu ëpp pas-pas bu loolu nag lu yaakaarlu la lu dal la moo tax suba bis bi incha allahu ni mu daan doxee rek tey stade mi ngi nii lépp pare na njaañeen yeeg ngayeen yeeg jengeen yi bu ñu yee bu subaa du ñu am lu leen naqari incha allahu te it lépp pare na lépp ngi en place ñu fas yéenee taataan fii teertu fi seexu tijaani ak junniy junniy yi nga xam dana ànd ak ñoom ak njabootu say Seydina Cheikh Ahmad Tijaani Chérifil Fatimi gépp incha allahu euh, ndax mën nañ xam surafaa yi war a jóge bitim réew yegsi nañu Sénégal wala yegseeguñu waaw ñu ci bëri egsi nañu dèjà ñu ngi ci ñu ngi en place ñu jógee Maroc ñu jógee Europe ñu jógee ba Côte d'Ivoire un peu en partout en Afrique mm-hmm. partout en Europe mm-hmm. ci biir Sénégal ak ci bitik Sénégal ñoom ñëpp ñëw nañu mm-hmm. ñëpp pratiquement egsi nañu incha teewee si fi ànd ak ñun bokk ak ñun xéewal gi ànd ak ñun bis bu unique bi nga xam ni benn yoon lay am par at kon donc bu ko kenn bu ko kenn tardé bu mu rëcc kenn incha allah ñu bokk ñun ñëpp yéeneente nañu kenn ku nekk yiw yéen nga ko sa moromu taalibe yéen nga ko sa moromu jullit ñi ngi woo jullit yëpp yëpp ñi ngi woo taalibe cheikh yëpp mais ñi ngi woo sax bépp nit rek bu bëgg xéewal bu bëgg tarixa incha allah euh, fi réew mi toll actuellement ak jafe-jafe yi ak crise bi am Sénégal lan ngay lancé comme appel mu jëm ci jeunesse bi rawatina jeunesse a ñëwaat nag ñu joxal leen pour que ñu mën a xam fi ñuy teg seen tànk. macha allah effectivement tey jii jamono fi mu toll addina bi sax nga fi mu toll li koy réglé mën naa tukkee ci bëccëg bi. addina bi fitna yi ne ci addina bi li koy réglé crise yi ngay gis ci addina bi menace de guerre yi nga gis ci addina bi li koy réglé mën naa tukkee fii bu subaa ak jàmm incha ndax li fiy daje te borom mbir yi moo fiy teew muy cheikh ci boppam te bu boobaa bu ñu ko ko ñaanee bu ñu ko nangulee loolu dana am falaa bu dee incha allah. kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm.